الحمد لله الكريم سلما على استقالي بفرود الحمد لله الكريم سلما على استقالي بفرود وسنن الحمد لله الكريم سلما على استقالي بفرود وسنن سكرت لأنه قد سخني لوطن بي نفى مع القني وخادني إليه بالتهاني من بعد ما سبب التخير وجرني فيه إلى العلوم والفوز والأمل بالمحلوم ثم الصلاة بسلام تبعا هل الذي خزي قنا تبعا هل الذي من بمراد اقتدى في سر والجري يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربي فسان الدين wasilati li maliki rafiqi général association Hikma pour la solidarité islamique dañu ñëwoon pour euh, jàppalante ak jaamu yàlla yi rek si li nga xam ne association bi jot na koo am muy joxe fii ceeb ak suukar ñu jëloon lu toll ak juróom fukki nit kenn ku nekk ñu jagleel la benn sac de ak benn gorosu sucre ñu def ko si ndimbal yi nga xam ne association bi daf koy faral di def te dafa nekk ci sunu vocation daal sunu liggéey la euh, association bi ñoo ngi ko créé 2008 ci Dakar si njiitu Serigne Khadim Lo moom mooy président association Hikma ak euh, man maay trésorier général am na ñeneen ñoo xam ne ñoom lañ bokkal liggéey bi léegi nag euh, dañuy faral di collecter dajale ay zakat ak ay ndimbal ay solidarité bon ñu ko dajalee ba pare après ñu destiné ko fi mu war a dem donc ñun dañuy nekk rek benn rôle intermédiaire lañ ci joué si ñi nga xam ne dañuy joxe ñun ñu nekk bi réceptionné loolu ba pare joxewaat ko si anam bi mu gën a sellee gën a nuroo ak l'islam euh, d'habitude moom dakaar lañ ko doon def toujours depuis 2008 ba léegi dakaar lañ ko doon def am na benn année ci ginnaaw 2013 euh, essayé woon nañu décentraliser yóbbu Kaolack mais année bii lu si particulier mooy dañ ko yaatal dañ koy yaatal parce que dañu dañuy dem Touba dañu ñëw Touba nii euh, année bi boole ci Kaolack boole ci ñaari place yu wuute si dakaar donc pour gën a yaatal liggéey bi loolu moo moo nekk jotaayu tey bi nii. bon li ñu ci mën a dolli tamit euh, ñu ngi ko defee fii ci pencu Daaru Minam fii ci mbaar mi dëppoo ak euh, toogaayu sëñ Mountakha Bachir ñun tamit ñu profité pour joxewaale ko dëppoo ak li nga xam ne daf koy woote toujours si wàllu ndimbal. d'ailleurs sax démb ci ngoon euh, veyu euh, distribution bi tey nii dem naa gis ko wax ko yóbbantewu association bi ak président bi mu kontaan ci ñaan ci ñaan yàlla barkeel ko mu gën a bari daal ne yoon wi mi ngi nii nañ ci jaar. duñ ko def Ramadan sax ren presque lañ ko def bi mooy deuxième bu buñ ko def à part Kaolack mais lu ci ëpp si annuel lañ koy def dañuy jàpp dat bi par at ñu ngi koy defee dakaar bon at at bu bu ñu ko saa ñu ko jàppee nag foofu dañ fay joxe zakat joxe fa ay denrées alimentaire comme ni ñu ko defee fii tey boobu moom depuis 2008 ba léegi ñu ngi koy def mais bii ñu def ci ramadan bi nag moom c'est une première ñu ngi koy doog a commencer di ko defee ci façon bi à part benn année bi ñu ko defoon te xaw na yàgg mooy Kaolack mais dañu bëgg nag léegi incha allah di ko gën a màggal di ko def saa yu nekk incha allah. association bi moo ngi Dakar Parcelles Assainies. mu ngi si ginnaaw polisu Parcelles Assainies bi rek soo taxawee si angle Sëñ Fallou bi soo laajtee association Hikma dinañ la ko joxoñ si wetu marché polis foofu mooy nekk suñu siège. bon zakat yi si sénégalais yi rek parce que association bi ay ressources am euh, yenn yi cotisation la d'abord parce que membres yi ci nekk dañu am ñoo xam ne ay membres ordinaires lañ dañuy cotiser mille francs at bu nekk. am na ay membres d'honneur dañuy cotiser cent mille francs par at am na ay cartes yu ñu tuddee ay contribution volontaire cartes yooyu amul njëkk nit ki bu ko neexee mu def ci dërëm bu ko neexee mu def ci un million donc ñetti façon yooyu lañu am comme ay ressources à part ñeneen ñi nga xam ne ay defkatu lu baax lañ tamit gis action wu association bi mu neex leen ñu jël seen yëf dugal ko ci compte yi parce que compte yi ñi ngi fi mais compte yi aussi dañ ko xaaj dafa am compte zakat spécial am compte bu nga xam ne fonds de solidarité la am compte bi nga xam ne ni gestion association bi fonctionnement bi rek la yor am benn compte bu nga xam ne waqf islaam yi la yor parce que kenn ku nekk yaay xool li ngay joxeel ban nature xaalis la nga destiné xaalis bi ci compte boobu voilà loolu moo ci am